macha allah di nuyu ñëpp di ziar ñëpp macha allah ànd ak sama sëñ. waaw di nuyu madame Sow la reine ak national Daaru Laay macha international ñoo aaye nag. Ah, ànd ak suñu sëriñ. nekk Champs-Élysées. champs ngi ak le triomphe. ñu ah. ngi visité daal di xool. maa ngi koy won ah. man ak Aïssata ñu ngi koy won tuuti Paris. waay waay waay macha allah <laughs> jërëjëf jërëjëf Niang ñoo ngi nuyu gars yi ñoo ngi nuyu ñëpp ñu ngi seet à travers TMS TV di nuyu Soxna Ñaama macha allah Aïssatou di nuyu nag euh, waa international jëwriñ Fa Bakari jëwriñ Galoso jëwriñ Fama jëwriñ Digel jëwriñ Tonton Sow aussi di nuyu aussi waa national jëwriñ Ajaratu Xadi Ba jëwriñ Ajaratu Xadi Mbuub jëwriñ Galaay di nuyu madame Sow la reine soxna Umi Ajaratu Mariama Camara madame Sow la reine ah di nuyu prince un prince deux ñoo ngi doxantu macha allah di def quelques visites ah macha allah day jege waaw. ñu demee dañoo ñëw def ay visite ah. nee ah noonu. ñëw def que ni pompier yi ñoo yëg dafa am waaw nañ taxaw nii waaye ñoo ngi fii ci ci ci ci waaw ñoo ngi fii def visite mbooloo bi bëri nañ ci lool di filmer bërëb bi di xool waaw ah. macha allah jëlal environnement bi. fii ba suba bi yéen ñaa ngi fi rek kenn du bouger. ah heure bu ne waa heure bu ne ñu ngi fi rek. lii la ma lan la signifié fii. waa acte de terre fii nii lañu fi. denc ah, muy guerre première guerre xaw ma deuxième guerre mondiale waaw dafa am ku dee foofu xamuñu kan la te France la deewal daal ñoom ñu andi ko fii ah, si biir sécurité éclair ñuy bind lépp ah. boo ci biir dem mais xaw ma tey pompier yi nekk ci biir xaw ma ndax ñu ngi bàyyi mais ñu jege. jege si.